mbokk alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi yeesal sant suñu boroom subhanahu wa taala bi ñu dajale ci ab néegam fa séene jël ay ayat ci ab téeréem loole nekk jaamug yàlla goo xam ni suñu yonente sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo ñu ca doon ñaax ci ba muy wax ne majtama qawmun fi baytin min buyuti llah yatluuna kitab allah wa yatadaarasuunahu baynahum illa nazalat alayhim alsakina wa gashiyatuhum alrahma wa xaffathum almalaika wa zakarahum allahu fi man indah ay julit duñu dem mukk ci néegu bi yàlla ba ñu jël téere bi yàlla bi di ko jàng seen biir lu dul yàlla wàcce ci ñoom ak dal yiir leen ak yërmandeem ay malaakaam ñëw wër leen mu leen di tudd ca malaaka yu kawe ya ne fa moom yal na yàlla nangul ñu suñu jataay bi ca boole ko ca mbokk yi nga xam ne it fu ñu mën a nekk ci kaw suuf tamit ñi ngi bëgg a jëfandikoo la nga xam ne ni mooy jóge fii yal nañu yàlla boole ak ñoom fayal ñu ñi nga xam ne ñoo dox suñu diggante ak ñoom na doon suñu télévision bi di Islam TV wala yeneen site yi nga xam ne ñoo aju ci jàkka ji yépp di tasaare la nga xam ne moo fiy jël moo fiy jógee tey jii mooy juróom-benneelu fan ci weeru Shaaban sunu maam yi di ko tudde baraxlu ci 1443 muy dëppoog le 9 mars ci 2022 ñu war a jël suñu aaya bu jëkk ci suuratul jumaa insha allah bu dee Cheikh Ousmane pare na
bismillahi rahmani rahim yusabbihu lillahi ma fi السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وإن كانوا من قبل لفي ضلال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض من نكدي feeñal sellug yàlla sabbal yàlla ñeel yàlla lépp lu nekk ci asamaan yi ak lu nekk ci kaw suuf almaliki alquddus moom mooy buur bu sell ba al aziz al hakim mooy ki not lépp ci kattanam mooy ki xereñ ka huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum mooy ka génne ca ña nga xam ne jotuñu woon ay téere yonent ba bokk ca ñoom yatlu alayhim ayaati muy jàng ci ñoom aayay borom ba wa yuzakkihim di leen sellal wa yuallimuhum alkitaaba walxikma di leen jàngal téere ba ak la nga xam ne mooy xereña ga di sunna ba wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin doonte ne xeet boobu nekkoon nañ lu jiitu yonente bi ci réer goo xam ne réer gu biir la wa axarina minhum lam lamma yalxaqu bihim ak ñeneen ñu dul ñoom ñoo xam ne ñoom day dabaguñu ñii wa huwa al-azizu al-hakim ca sa borom yàlla mooy ki not lépp ku xereñe ka zalika fadlullahi yu'tihi man yasha lii nag mooy gëneelu yàlla gëneelu yàlla moo koy jox ku mi ngi noonu ku ko soob mi ngi noonu wallahu zul fadlil azim sa borom yàlla nag borom ngëneel yu màgg la mi ngi noonu mbokk jullit lii mooy suratul jumaa suñu borom di ci junju jaamu yàlla gu màgg googe ñuy def ci bisub ajjuma muy am ci bis bi gën a màgg ci semaine bi yépp ca mooy jullik jumaa suñu borom ubbee ko ni mi ngi koy sabbal li nekk ci kaw asamaani ak suuf sabbal yàlla mooy tudd sellug yàlla wane ne yàlla kenn la yàlla kenn du nawleem la muy def kenn du ko def nee na nag loolu lépp nga koy def lu waral loolu mooy yàlla moo bind lépp li nekk ci kaw asamaan ak suuf ca amul benn mbindaa fa nu yàlla bay xool lu dul nga gis ca sellug yàlla looloo tax ñaar moo am mooy ñiy sabbal yàlla ci seen melokaan ak ci seeni làmmiñ te mooy malaaka ya ak jinne yu baax ya ak nit ñu baax ya ak mboolemi bàyyi may ak mboolem loo xamee ne nii xam nga ko xamoo ko jante weer ak montagne ak lu mu mën a doon lépp ngi sabbal yàlla donte ne xamuñu nuñ koy defee ñooñu amma bu dee ab yéeféer mi ngi sabbal yàlla ci jëmmam mbokk yéeféer bi taxaw ne yàlla amul weddi yàlla moo ne moom day nekkoon na toqamani yu suñu borom jël ko def ko lumbu deret kon fa subhanallah deret jooju mu def ko lumbu yàpp fa subhanallah mu def ko ay yax subhanallah génn na ko mu nekk ab liir subhanallah màggal ko mu nekk waxambaane subhanallah mu dem ba mujj mu màggatal ko subhanallah bis ñëw mu rey ko mu dee subhanallah kon processus bi muy jaar yépp ci dundam ay nelawam ay feebaram ay wéram lépp day won kattanu yàlla jalla wa ala ndax lépp mi ngi bawoo ci borom boobu nga xam ne moo ko bind ci mooy alqayyum bi koy taxawee amma yow julit subhanallah day feeñ ci sa jëm feeñ sa jëf feeñ say wax moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunnaal ci ñun julit bés bu nekk da nga toog wax cent soixante cinq fois subhanallah gannaaw julli gu nekk trente trois juróomi julli boo ko boole muy cent soixante cinq fois da nga taxaw wax ko subhanallah comme na nga koy waxe alhamdulillah comme na nga koy waxe allahu akbar gannaaw bu jullit heure bu gisee lu ko yéem subhanallah heure bu bu ko mbir bettee subhanallah ndax da ngay xam ni lépp mi ngi bawoo ci borom bi jalla wa ala borom boobu mooy almalik mooy buur képp ko woote buur bis dana ñëw rey la des fi dekk buur moom rek mooy buur mi ngi noonu keneen ku dul moom jaam nga commencé ci malaaka ya ba ci nit ñi yonent yeeg kum mën a doon jaam nga yàlla rek kay buur doonte ne buur boo gis ci àdduna rek am na am na ayib bu ñu koy critiquer amul buur bu ñu contesté wul ci àdduna amma sa borom mooy alquddus mooy malik buur bi nga xam ne amul défaut du tooñ kenn du teg lenn fu mu war te tegee jëll wa ala màggaayam nga amul fu mu yem mooy ki sell amul benn ayib mooy ki nga xam ne it lu mu bëgg a def kenn du tee mu def ko mooy al aziz te mooy ki nga xam ne kenn munta def lu ko neex mooy al aziz mi ngi noonu allahuma lu dul nguur googu mu yor ak kattan googu mu yor du ko teg lu dul fa mu war a tegee alxakim mboole mi atteem lépp a jub mboole mi digleem lépp a jub mboole mi tereem lépp a jub mboole mi dogalam lépp a jub alxakim mooy dogal lu ko neex donte ni doomu aadama yi léeg-léeg duñu xam alxakim lan mooy tax sabab muy def yu bëri yi muy def waaye yàlla du def dara ci azar ñi ngi sant suñu borom subhanahu wa taala ajjuma ji passé yàlla daa dogal waa sone si ñëw fii di defar suñu robinet bi toj robinet bi guddi gi yépp jàkk ji yépp inondé loole mbir moo xam ne yéeme na lool waaye yàlla su néeg bi nooy seetaan muy inondé nii ndekete xikma bi ci yàlla namoon tapp yi bañ ko fi lalee léegi mu jege dix ans yàlla namm na ci inondation boobu mboole mi tapp yi fi nekk yóbbu nañ leen ci kaw nettoyé leen wàcce waat leen tey ci tàkkusaan lañ ko fi lalaat yaa ngi dégg mi mbokk alxakim mi ngi noonu su ko defee yow julit mboole mi dogalam da ngay ñaan yàlla bu dee lu neex la nga ñaan yàlla may la nga sant ko bu dee lu naqari la nga xam ne alxakim moo fa jaar muñul muñ ko rafet ñaan yàlla def ko yiwu adduna ak yiwu alaxira loolu mi ngi noonu alxakim borom boobu nag di wax ne ñi ngi profité it ñaanal mbokk yi nga xam ne wax dëgg yàlla coono bu ne daj nañ ko ci yéega moket yeeg ak lal moket yi yal na yàlla fay leen mu ngi noonu su ko defee kon ñi ngi sant suñu borom jalla wa ala ci moom ay ay atteem yépp borom boobu nag moom moo jël ab yonent génne ko ci ummi yiin te mooy illettrés yi nga xam ne xamuñu woon ay bind ak liir te mooy arab yi yàlla musul wàcce ci ñoom téere ci ahlul kitaab bi da ko doon wàcce mu xëy xëy génne ci ñoom ab yonent ci loo xam ne depuis ibrahim alayhi salatu wasalaam seen maam bu jëkk da ngay gis ne loolu amul woon yonent boobee bi mu ñëwee mu leen di jàngal aayay borom bi mi ngi noonu di leen taril aayal borom bi comme ni ñu ko Cheikh Ousmane di jàngale nii di leen ko jàngal waaye yonent boobu it wa yuzakkihim moo leen doon defal tarbiya zakat day firi ful ak teg gi lépp loo xam ne nii ay lor la fekkoon na arab yi comme ni ko yàlla waxee ñu nekk ci réer gu màgg seen loi mooy ku ëpp doole sa morom lekk alalam lekk medd njaaloo rayante siifante loolu rek lañ xamoon yonent boobu alayhi salatu wasalaam ñëw di leen tàggat ci jukko yu rafet yi mi ngi noonu jukko yu rafet yi masalan da ngay gis ne aaya boo xam ne tuubloo na lu bari ci ay buuri arab yoo xam ne dañuy déggoon ñoom lan mooy arab mooy fi suñu borom di wax ne inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi yàlla day li muy digle mooy ne ñépp maandu li muy digle ku nekk na rafetal jëm ci moroomam li may digle seen jegeñaale yi jox leen leen seen àq yàlla mi ngi tere lépp loo xam ne ñawteef la lépp loo xam ne lu bon la lépp loo xam ne ak beew la gis ngeen mbokk aaye boobu rek ni mu tënk li ñu tuddee makaarimul axlaaq loolee la yonente bi nekkoon nag xeetam saxaaba yi ko gëmoon yuzakkihim waaye nag yuallimuhumul kitaaba wal xikma di leen jàngal téere borom bi jalla wa ala te mbokk gis nga li yàlla jëkk a wax yatlu alayhim mooy mi ngi jàngal xuraan ci waaye alxuraan jooju bu ñu ko jàngee dafa laaj ñu leeral ko looloo tax mbokk sahabatul kiram dañ ne dañ daan jël ci yonent bi fukki aaya laaj ko ba xam mboole mi atte ya ca nekk yépp ba xam ne lii mën nañ koo jëfe suñu paree doog a jël yeneen fukki aaya looloo tax ba alquran mbokk jàng alquran firiwul ne jàng baqara ba naasi jël sa doom yóbbu daara mu wàcc alxuraan nga ne kon wàccewa nga ak moom yóbbu sàndaga muy jaay ay wiise kii kii déedéet mbokk julit loolu taxul ma xam alxuraan de alxuraan dañ koy jàng ci tafsir yoo xam ne aaya bu nekk dafa am lu muy woote jëm am lu muy tere am lu muy gëmloo yuallimuhumul kitaab waaye di leen jàngal alxikma képp koo xam ne nii da nga nekkub julit da nga war a xam ne islam ci ñaari laaf lay naawe mooy alquran ak sunna yonente bi salallahu alayhi wa sallam sunna yonente boobu ni yàlla sàmme alquran la ko yàlla sàmme ci ay téere yoo xam ne borom xam-xam yi xam nañ ne yii ay téere yu wér la loolu moom mooy sunna yonente bi salallahu alayhi wa sallam mu ne doonte ne ñoom ñi ngi nekkoon ci réer gu gu tar borom boobu nag subhanahu wa taala daa di ne am na ñeneen nag ñu bokkul ak xeetam bi ñoo xam ne dab si guñu leen ca loolu mooy ba ila yawmiddin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla da ko yónne bi ila yawmiddin looloo tax ba ñun ñii toog insha allah ak plus deux milliards et quelques de musulmans ñi ngi jëfandikoo ay ñanginam ba suñu jamonoy tey jëfandikoo ay njànginam ba suñu jamonoy tey borom boobu nag noonu nga xam ne nee nañ dabaguñu génération yu jëkk ya naam bokkuñu woon dundin donte ne it mënuñu leen a dab ci ay jëf muy sahabatul kiram mu baamu waat ne muy al azizul hakim te bokk na al izza boobu lu jëkk li mi ngi wone moomeelam ak kattanam waaye fii it mi ngi wone xereñeem te mbokk mooy alquran bi mu wàcc ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la yàlla dëkkee mboolem mbindaa fën yépp ne bu nit ne nit ak jinne daje woon ngir indi lu mel na alquran mënuñu koo indi ndax mi ngi jóge ci al aziz al hakim mu ne nag lii ngëneelu yàlla la moo ko jox ku ko neex te mooy yahud yi nga xam ne bi yananti yàlla bi di feeñ ñoom ñépp ñi ngi doon waaj xam ne jamono jii day jamono yonent la bi yàlla indee yonent bi feeñal ko ci arab yi loolee naqari leen loolee bew loo leen bëgg muñu ko ndax pour ñoom yeneen ti yahut la war a doon suñ borom ne waaye man su may ngëneel maa ko jox ko ma neex ca loolu it yow julit gëmal loolu moo ko ngëneelu yàlla tënkuwul ci ab gox tënkuwul ci sant tënkuwul ci dara yàlla mooy jox ngëneelam ku ko neex looloo tax foo toll del ñaan yàlla ci ay ngëneelam borom boobu nag subhanahu wa taala ni yàlla moom mooy borom ngëneel yu màgg yi ca xam leen ne mbokk julit ngëneel bi gën a rëy bu yàlla di jagleel ab jaamam ci kaw suuf mooy wërsëgal ko mu dund alxuraan ak sunna yal na yàlla wërsëgal ñu ko defal ko bépp julit mi nga noonu Cheikh Ousmane yi
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون بارك barakallahu fikum suñu borom jalla wa ala mu ne masalu lazina xummilu tawra misaaluk ña nga xam ne day dañu leen a tegoon lii di téereb tawraat summa lam yaxmiluha gannaa ba ñoom gàdduwuñ ko jëfe ko ka masalil ximaari yaxmilu asfaara dañoo mel na rek mbaam boo xam ne daa yenu ay téere bi'sa masalul qawmi alladina kazzabu bi ayatillah aka bon waay misaalu ña nga xam ne dañoo weddi aaya yàlla ya wallahu la yahdi alqawma zalimin te yàlla day du jëbal xeetu toonkat ya qul ya ayuha alladina haadu neel ay yéen ñi nga xam ne da ngeen ne ay yahud ngeen in zaamtum annakum awliyaau lillahi min duni nnas su dee jortu ngeen ne day yéenay farandoy yàlla nit ñi bokkuñu ca fa tamannawul mawt kenn ci yéen na ñëw léegi ñaan dee in kuntum sadiqin su dee ne nekk ngeen di aji dëggu wala yatamannawnahu abada dee googu duñ taxaw mukk di ko mébét di ko ñaan seen kaw mukk bi ma qaddamat aydihim ngiree la nga xam ne jiitaloon na ko seen loxo ya wallahu alimun bi zalimin yàlla day moo gën a xam tooñkat ya qul inna al mawta allazi tafirruuna minhu neel dee gi nga xam ne day yéen a ngi dëkk di ko daw fa innahu mulaqiikum dee googee day aji ku ñuy dajale ak yéen la suma turadduuna ila aalimi alxaybi wa shahaada gannaaw ba ñu delloo leen ca ki xam kumpa ak lépp lu feeñ fa yunabbiukum bi ma kuntum taamaluun gannaaw ba ñu xabaare leen ci lépp li nga xam ne nekkoon ngeen di ko jëf mi ngi noonu bokk julit suñu boroom bi mu ñu waxee ngëneel gu réy gi nga xam ne moom la ñuy defal te mooy alquranul karim te ngalawaay yow doomu julit xamal ni loo mën a xam ci kaw suuf loo mën a am ci kaw suuf xam alxuraan ak sunna ko gën loo mën a xam loo mën a am ci xamoo alxuraan ak sunna perte ga loolu nag ngënil la goo xam ni dañ koo war a téeg suñu fukki loxo ak juróom suñu borom nag dañuy xamal ñoo xam ne ñoo ñu fi jiitu woon xéewal gi ñu yàlla defal yàlla defaloon leen ko yahud yi yàlla teg ci ñoom téere bu mag te mooy téere bi gën a mag après alquran muy at-tawra yàlla sant leen ñu jël ko jëfe ko ñu jël alquran ñu jël tawra sànni ci seen gannaaw créer seeni jaamu yàlla yu dëpp ak seen bànneexu bakkan daganal lañ bëgg araamal lañ bëgg mi ngi noonu mel ne xamuñu borom boobu mu ne yahud yooyu day dañoo mel ne mbaam bu ñu sëf téere gaa yi mbaam boo juroon bibliothèque suuf mbaam mbaam kay am na xam-xam waaye lu mu koy jëriñ jëriñu ko dara loolu mooy misaalu képp koo xam ne da ngaa jàng ba pare jëfewoo léegi nga dégg nit def njaaxum wax njaaxum ñu ne ah mu ne ku bëri xam-xam la ah kay ki bëri xam-xam moo mën a yàq lépp lu yàq ci àdduna rek borom xam-xam moo ko yàq nga defa ne bomb yee ñuy dóor Ukraine wala di ko dóor feneen man mi mën naa koo defar déedéet borom xam-xam moo ko defar naka noonu diine ji ñi ci yàq ñëpp mooy ay borom xam-xam la ñuy doon looloo tax yahud yi suñu borom ne dañoo mel ne mbaam bu gàddu ay téere doonte ne suñu borom nee na mbaam sax moo leen gën balhum adal ndax borom xam-xam yi dañ na mbaam boo ko sëfoon ay téere sëf ko alxuraan ak sunna moom du ko jëfe d'accord waaye nag du ci yokk dara du ci wàññi dara ñii nag ñoom non seulement jëfewuñu téere bi yàlla bi waaye yokk nañ ko wàññi nañ ko dóoral yàlla kon mbaam saxaleen tani borom boobu nag subhanahu wa taala ne aka bon misaalu ñi weddi aayey borom bi te mbokk kon képp koo xam ne aayey borom bi ñëw na ci yow jëfewoo ko yaag mbaama yem wala mbaam moo la tani loolu mooy si misaal borom bi nag nee na du jëbal xeetu tooñkat te mooy ñi xam dëgg ba pare lànk ko xam dëgg ba pare teg ci seen tànk suñu borom mu ne ñooñu yàlla mu ne du leen jubal mi ngi noonu borom boobu nag ne yow yonent bi wool yahud yooyu ne leen yéen jàpp ngeen ne yàlla yéen rek la faral te xam ngeen yahud yi dañ ne ñoom ñooy Sha'bullah al-Mukhtar ñoom ñooy xeet bi yàlla tànn kenn du dugg àjjana ku dul yahud kenn ku dul yahud sañ-sañ bi ñu am ca fas ak mbaam am nañ ko ci yow laysa alayna fil ummiyina sabil ku dul yahud loo ko def doo ci am benn bàkkaar borom bi ne waaw bu dee jàpp ngeen ne yéen la yàlla farandool kaay leen ñu ñaan yàlla wàcce dee ci kiy fen ci ñun su dee wax ngeen dëgg te loolu mooy lu ñu tuddee mu baax la mu mu baax la mooy ñaan yàlla yàlla alak kiy fen ci yéen lu mel noonu yàlla ngi ko wax ca ca Ali Imran fii muy wax yonente bi alayhi salatu wasalaam ne bu dee jàpp ngeen ne yéen a nekk ci dëgg qul taalaw nadu abnaana wa abnaakum wa nisaana wa nisaakum wa anfusana wa anfusakum suma nabatahil fa naj'al laanatallahi ala alkazibin kaay leen loolee mbokk yonente bi alayhi salaam wax ko yahud yi bépp yahud bu jàpp rek ne yàlla yahud yi rek ñooy ay farandoom keneen bokku ci na taxaw ne yàlla bu dee li may wax du dëgg naa dee léegi benn yahud mosu ko ñemee wax ndax xam nañ ne buñ koy wax di dee dem safara gis ngeen buñ koy wax di dee dem safara donte ne ne mbokk lii yàlla wax su dee jàpp ngeen ne yéenay farandoo yàlla ak a neexoon jullit ñi bañ ciy dugg ak a neexoon jullit ñi bañ ciy dugg waaye mbokk jullit ñi tamit créé nañ ay sant yoo xam ne ñooy farandoo yàlla ku ca bokk moom waxumaa yow sa àjjana leer na waaye ku la topp rek sa àjjana leer na ku la yaakaar sa àjjana leer na yàlla dañoo nattoo kenn ci suñuy mbokk am ca ñenn ñu bokk ci famille boobee ñëw takk leen mu am ca benn doom bañ koy ngénte ña ñëwoon di tudd si ne yéen famille bi yépp na seen xel dal dereti sëñ diw famille bu mu dugg ñëpp texe nañu waaw mu ngi noonu bokk deret bi fu mu dugg rek liir bi juddoo ci famille cekkeen rek yéen na seen xel kii so sëñ càmm xam naa moom seen boo ngeen seen waaye mbokk loolu ay mbir la yoo xamee ni nii ñoo ko créé de toutes pièces mbokk suñu borom du farandoo kenn xam nga kuy farandoo yàlla in awliyauhu illal muttaqin ñi ragal yàlla ñooy farandoo yàlla ay belge la ñoom ay allemand la ñoom ay saraxole la ñoom ay njaago la ñoom ñoo ñooy farandoo yàlla ku la mën a jur ci kaw suuf santal ay daraak lu la neex santal maadaama jaaroo fi neex borom bi subhanahu wa taala wallahi bokkoo ci farandoo yàlla kon loolee ñu xam ko suñu borom kon di ñuy moytuloo benn li yahud yi defoon mooy yàlla jox leen téere bu yàlla bu ñu sànni ko ay yow mi yor alquran alquran dañ koo war a gëm jëfe ko du lu ñuy toileto wala lu ñuy wàcce wala leneen dañ koo war a gëm topp ko waaye it gannaaw ba xam leen ne la lay may cër ci yàlla du sag juddu la lay may cër ci yàlla mooy sag ragal yàlla ak sag jëfe lii la ku nekk war a gëm képp koy màggal ci diine màggal ko ci xam-xamam ak ragal yàllaam ak jëfeem waaye dun rek diwooy baayam diwooy maamam kenn munta gën a baax yonent yàlla nuux te doomam ma nga ne jëm safara am déet kenn munta ba gën a wax yonent yàlla ibrahim bàyyam ma nga ne jëm safara am déet kon mbir yi tënkuwul ci askan wala ci deret wala ci couleur borom boobu subhanahu wa taala loolu la wax mu ne nag nee leen yéen day dee yi nga xam ne yéen a ngi koy daw xam leen ne day day day daje ak yéen te mbokk julit julit moom dafay am yaqiin ci ne man kat maa ngi nekk nii di dox waaye dee mën na maa dab fu nekk loole ak jajj la ak tiital la goo xam ne maadaama dee mën naa dajeeg man fu nekk danaa góor góor la ba du ma dem mukk foo xam ne su ma fa dee fekkee gàcce am am déet bokk na lu tiitaloon borom xam-xam yu jëkk ya mooy mujj gu ñaaw yal na yàlla musul ñu ci mujj gu ñaaw yonent bi alayhi salaam nee na nit ki dana jëf jëfi waa àjjana ci li nit ñi gis mu dem ba dara desul mu dugg aljana lu dul benn jéego mu wëlbati ko def jëfi waa sawara dee ca yàlla yóbbu ko safara comme ni contraire bi ni muy amee ci ku nekkoon ci lu bon dëpp looloo tax ba yow julit comme dee moom borom bi nee na yaa ngi koy daw mi ngi dajeeg yow feneen fi mu ne mi ngi leen di dab aynama takunu yudrikkumul mawt fu ngeen mën a nekk dee fekk leen fa walaw kuntum fi burujin mushayyada lam lay jàngal rek yow julit mooy góor góor lul ba foo toll ngay wàcc ba bu dee bu ñëwee nit du la bett lii mooy la nga xam ne ba borom xel bokk na la borom xam-xam yi doon wax bokk na ci képp kenn ci ñun di bàyyi xel ni waxtu wi ëllëg mën na fekk dee na ndax kat mbokk dee amul raison amul benn raison boo xam ne ni mën na laa garantie ne da nga dund ba suba kenn amu ko looloo tax borom boobu ne subhanahu wa taala ne gannaaw ba daañu leen delloo ci ki nga xam ne la ngeen doon def ci kenn yéegu ko moom xam na ko la ngeen doon def ci pénc ma moom xam na ko muy alimul xëy boo shahada loolee muy wane ne comme dee mi ngi ñëw mënta ñàkk benn lépp loo xam ne maa ngi koy def su ma demee yàlla dana ko feeñal atteme ci yow julit da ngay góorgóorlu yeme la sa jëf yu baax ya ngay def ca nit ñi di gis ak la ngay def ca biir rasul sallallahu alayhi wasallam nee ne xam naa ci sama xeet ñoo xam ne dañ indi montagne jëf yowmal qiyama yàlla def lépp poussière sahaaba yi na ko waaw ñoo ñu ma ñandi mu yàlla yónni mu ne mooy ñi nga xam ne tant que nit ñaa ngi yëkk lépp lu yàlla bëgg ña nga ca waaye buñ jëmee ba wiit lépp lu yàlla araamal ña nga ca yàlla na yàlla musal ñu ci loolu rek mu ne alimul xayb wa shahada su ko defee borom bi mu ne danaa leen xabaare lépp loo xam ne yéen a ngi ko doon jëf amma képp koo xam ne bi ngay dee tuuba deeyaa nga le tuub gu sell ca sa borom su ëllëgee borom bi subhanahu wa taala bu lay xabaare say njombe sa digganteeg moom lay doon gannaaw ba mu jéggal la ko amma bu dee keneen ku dul moom bu la koy xabaare ci kanamu nit ak jinne ak malaayka yi la la koy xabaare ñëpp ànd rëbb la yal na yàlla sutural ñu àdduna sutural ñu àllaaxira mi ngi noonu Cheikh Ousmane يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين barakallahu fikum suñu borom jalla wa ala mu ne ya ayuha alladhina amanu e yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm ida nuudiya li solaati min yowmi aljumaa su dee dañoo wooteel julli ci bisub ajjuma fasaw ila zikrillah daw leen jëm ca fàttalikoo yàlla ga ca mooy farlu leen jëm ca wazarul bay bàyyi leen lépp loo xam ne nii am njaay la mu yépp façon liggéey zalikum xayrun lakum in kuntum taalamuun loolu day nekk na ngëneelu dekk li li gën ñeel leen su la nekk ngeen di xam fa ida qudiyati sola suñ demee ba jooxee julli ga mi ngi noonu fay ko ndax bar bu gàddu woon la fantashiru fi l ard na ngeen tasaaroo ci kaw suuf wabtagu min fadlillah te ngeen sàkku ci ngëneelu yàlla wazkurullaha kasira te ngeen di tudd yàlla lu bari laallakum tuflihun ngiree ngeen doon ñu texe wa ida raaw tijaratan aw lahwa waaye ñoom day bu ñu gisee lépp loo xam ne ab commerce la ci njënd ak jaay wala lépp loo xam ne ay puukare la infadu ilayha ñu daal di tasaaroo wàcc jëm ca loolee wa tarakuuka qaa'ima yow ñu bàyyi la yaa ngi taxaw nekk di xutba qul maa inda allahi xayrun min allahwi wa min attijaara waaye xamal leen ne nekk ci yàlla day moo gën lépp loo xam ne puukare la ak lépp loo xam ne ab commerce la wallahu xayru raziqin te yàlla moo gën ci ñuy wër sa galaate mi nga noonu mbokk julit kii day saxal jaamu yàlla gu mag di jullig ajjuma nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na yàlla ñun lay jëkka woo xeetu yonent bi atte leen ñun lay jëkka dugal aljanna yal na yàlla boole ñu ca li waraloon loolu mooy yàlla bi mu santaane ñu màggal bi sàjjuma yahud yi dañ koo soppi def ko samedi nasaraan yi soppi ko def ko dimanche ñun yàlla déppale ñu ci suñu borom mu ne bu ñu ko wootelee dem leen donte ne woote bi mooy woote bi wone ne imam ñëw na yonent bi alayhi salaam benn nodd àjjuma la fi bàyyi abubakar bàyyi ko fi omar bàyyi ko fi ci jamono usman madina yaatu lool marché yi doon loo xam ne yaatu mu ne léegi nañuy sos benn nodd boo xam ne jamono yooyu montre amul suñ ko noddee nit ñi yëg ne ajjuma ji jege na ñu daal di tëj seeni magasin ngir waajal waxtu julli bi loole mu saxal ko saxaaba ya ànd ci ak moom waaye nodd bi ñuy wax mooy nodd bi wone ne imam ñëw na loolu moom képp koo xam ne dégg na ko araam na ci yow nga nekk ci benn liggéey di ci liggéey bay bi yàlla wax fii mbokk mu képp kuy liggéey day jaay kii day dem jaay xam-xamam mu informaticien ba médecin ba wala lu mën seen xam-xam la ñuy jaay ouvrier dem jaay seeni doole amma bisu àjjuma bu jotee may nañ la nga liggéey de waaye bis boo déggee nodd gi wane ne imam ñëw na mboole mi jaay dañ ko war a bàyyi suñu borom subhanahu wa taala mu ne nag loolu moo gën ñeel leen su dee xam ngeen doomu aadama bi léeg-léeg ci ay calculam da ngay calculer mi man temps bii may tëj mën naa cee ñàkk nangam ak nangam doonte ne julit moom day gëm yàlla mooy wërsëgal yàlla mooy barkeel ak bari koo xamee ne nii suñu borom yàlla mën na koo xañ lu bari ci wërsëg mi ngi noonu tey boo jëloon même commerçant bi rek man ngaa xëy suba ba 6 heures doo jaay dara 30 minutes yàlla jox la ci benn njaay moo xam ne moo ëpp li nga jaay ci ñaari fan yépp kon loolu mi ngi noonu ñaareel bi itamit yàlla mooy barkeel lu ko neex li nga bàyyi ca yàlla tax dem la nga cay jëlee lu mu néew néew yàlla moo koy barkeel moo tax borom bi ni bàyyi woon njaay mi bàyyi liggéey bi dem julli ji day loolu moo gën ñeel leen su doon te ne ne nekk ngeen di aji xam te loolu itamit ñu ngi ciy ñaax rawatina suñu doom yi nekk Occident ñu bari ci ñoom dañuy jàpp ne ah noonu ay tubaab lañu fii kenn du fi liggéey kenn mënu fee julli kenn mënu fee nangam ca fekk ne suñu borom nee ne ci ragal yàlla yàlla may ko génnuwaay laay temps yi rek am na kenn lu ko fa jógee ñëw dama nettali nee na ñoom service bi ñuy liggéey nee na dañuy def bu julli jotee ñu dem julli mujj nee na seen mbokki jullit yi de ñoo dem di leen wax ci chef bi chef tubaab bi ba mu convoqué leen waaye lu dégg da ngeen di bàyyi liggéey bi dem fu leen naan da ngeen dem lu kenn xamul seen benn waay ne leen ne leen na ko chef ñun ay jullit lañu bala ñoo nekk nit ànd ak suñu xel bu julli jotee fokk ñu julli buñ julliwul duñu normal mu ne ko ah bon mu ne ko waaw mu ne waaw kon kon garaawul utal leen benn place léegi ci biir service ba ne leen bu ngeen bëggee julli dem leen julli fii xoolal loolu dañ doon làqatu di julli tey fu leen neex ñu julli loolee kon mbokk daal suñu borom nee na moo gën ñeel leen léegi mbokk nañu xam ne farata juma mooy ñëw boo déggee nodd waaye ngalawaay loo gën a mën a teel a dem looloo gën ci yow loolu tax yonent bi alei salatu wasalaam dañuy wax ne ña dem ca njëlbeenu waxtu wa tonte na borom xam-xam am nañu ixtilaaf ci fan lay commencé ala almuhim ña dem ci njëlbeenu waxtu wa dañoo mel ne ña sarxe giléem ña ca tegu nag ña ca tegu xar ña ca tegu ginaar ña ca tegu nen ay kon dem nga ñuy dem juma ci heure yu wuute tuyaa ba dañ cee am bokkul amma dernier délai ba nag mooy nga digg nodd gi ñëw na ndax bu nodd bi ñëwee mooy imam ñëw na malaaka yi nekkoon ci buntu juma ji di bind ñii ñëw ak seeni not ñoom bu imam ñëwee dañuy lem seeni këyit daal di ñëw toog déglu xutba boo ñëwee jumaa ji it doo am not sa tur di figuré ci liste ba xam nga loolu wóorul de gars yi kon nañu góor góorlu di dem jumaa balaa imaam a ñëw mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala ne bàyyi leen jënd ak njaay te dem julli ji aaya bi mbokk bu yemoon foofu kon bisu ajjuma suñu xisee ba noddal juma journée bi yépp day aram ñu jaay ci waaye borom bi nag ne bu julli gi jeexee ngi noonu julli gi buñ ko joxee donte ne yàlla lim jëfandikoo mooy buñ ko fayee na am mbokk jullit xamal ne waxtu julli bu jotee rek bor la bu gàddu soloos bala ngaa libre da nga koo fay moo tax borom bi jëfandikoo buñ ko fayee gis ngeen donte ne lii am na beneen masala bu muy indi ci julli bu la imam rawee donte ne loolu xaw naa gudd waaye fay bii li muy firi mooy joxe leen ko gannaaw bi ngeen jullee ba pare tasaaroo leen ci kaw suuf sàkki nga ne lu yàlla yàlla ne woon bàyyi leen liggéey bi commerce bi léegi julli nañ ba pare tasaaroo leen ngeen sàkku ngeen lu yàlla loolu it mbokk muy wone ni yàlla muy wërsëgal waaye wërsëg dañ koy sabablu Omar ibnul Xattaab fekk na mboolem caamin ñu ngi nekk ci jàkka jo yor yor yaa rab yaa rab yaa rab mu jël yatam ba duur til til da ngeen ca marché ba nga ne yaa rab yaa rab kon da ngay sabablu léegi nag nga ne yaa rab moo tax borom mu ne tasaaroo leen ci kaw suuf ngeen sàkku ngëneelu yàlla su ko defee yiwit nga xam ne loo am yàlla lu ko wërsëgal nga sant ko yàlla nga lawaay bañ koo beewee bokk na lu yàlla gën a bañ jaam yi nga xam ne yàlla daa yaatal seen wërsëg ñu jàpp ne ñoom ñooy jàmbaar ñii dañoo yaafus ñii amuñu dara ngëneelu yàlla nga yor de wallahi doomu aadama bi amul kenn suñ càmm lu sa góor ga doon wax mu ne xamul jàmbaar ku mu xam ku yàlla ku yàlla dimbali képp koo xam ne am nga ci àdduna lu mën a doon da nga xam ne lii nga nelu yàlla la nga sant ci borom bi wabtaxu min fadlillah waaye nag julli ngeen ba pare bu leen fàtte yàlla wazkurullaha kasira day leen tudd yàlla lu bari naka day leen tudd yàlla ci seen làmmiñ masalan yow mi dem ca marché ba rasul sallallahu alayhi wasallam ne ne ki dugg ci marché ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو الحي الذي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير بلا نيات لم تيابا مليون تيابا جزاك الله خيرا yonent bay sam ne lool boo ko waxee da ngay am million ci tuyaaba mooy alf alf sa asana xoolu loolu mbokk julit lu tax moo di ne ne suñu borom daa bëgg jaam yi nga xam ne duñ ko fàtte ndax marché yi ñu bëri bu ñu fa demee fàtte nañ lépp amma yow mi nekk ci biir marché bi di fàttali ko sa borom zikr boobu nga def mu ne da nga am million tuyaaba te loolu it dañuy jàpp ne beneen zikr boo fa defit da nga am tuyaaba ju tol noonee waaye mbokk zikrullah gannaaw julli yemul ci làmmiñ waaye day yem ci jëf yow mi pesé fazkurillah yow mi natt fazkurillah yow mi mesure fazkurillah mboolem jëflante yi ngeen di jëfante fàttalikul yàlla lan la yàlla wax ci lii moytul lu xaraam moytul wor moytul nangam bépp mbir boo xam ne yaa ngi ciy dugg nga fàttali ko sa diggante ak sa borom loolu mooy zikrullah bi gën a mat ci zikrullah amma sa làmmiñ bu taqee laa ilaha illallah laa ilaha illallah te yaa ngi ci riba ba yaa ngi nax nit ñi yaa ngi nangam nangam zikrullah boobu valabulul wazkurullaha kasiran laallakum tuflihun ngiree ngeen texe zikrullah muy tax a texe borom bi nag am benn natt bu mu natt woon jamono sahaaba ya jamono boo xam ne xiif am na ci madina nit ñi amuñu dara yonente bi alei salaam yi ngi taxaw di xutba boobee lu bari ci mu fassiru ne dañ ni juma dañ ko doon def niñ doon defee la nga xam ne mooy julli it yonente bu mosaan ñëw day julli juma ba pare doog a xutba léegi yonente bi julli ni juma ba pare taxaw di xutba rek benn njëgg muy caravane boo xam ne nii dafa ñëw ca njëgg googu bu mosaan jógee Cham di ñëw yow bu la rëccee nga jënd ca presque weer après wala ñaari weer après lay ñëwaat bi ñu nekkee ci yàq ji rek gaa yi dégg ndëng-ndëng dafa dana ànd ak ay tabala moo tax borom bi ne lëhu dégg tabala yi njëgg ji ndëng-ndëng rek gaa yi fëxandoo bàyyi fa yonente bi sallallahu alayhi wasallam fëxandoo rek képp dem ngir bañ a am lu ñu rëcc gis ngeen loolee ngir jàpp ne julli nañ ba pare ñàkk a toog loolu amul amul benn benn benn lor loolu nag ba mu amee ca la leen borom bi subhanahu wa taala yedd ne leen ngalawaay bis nekki tey jëm ci commerce wala jëm ci ay ay ay lenn loo xam ne ni ay puukare la bu mu tax mukk ngeen won gannaaw yonent yàlla bi ca du moo leen jox ndigal mi ngi noonu hatta yastazinoo ko comme na nga koy détaillé suratu nuur loolu bu mu leen dalati mukk borom boobu it subhanahu wa taala ne xam leen la nekk ci yàlla day moo gën commerce moo gën lépp loo xam ne puukare la su ko defee mbokk jullit sa priorité mooy sàkkul ngërëmal yàlla place boo dem di fi liggéey liggéey bi nga dem ba lu xaram gàllankoor la fa bàyyil ca dem ànd ak yàlla lépp loo xam ne yaa nga ca te nga gis ne lii àndul ak ngërëmal yàlla bàyyil ànd ak yàlla ànd ak yàlla doo ko def mucc di di di di ko réccu abadan ma inda allahi xayrun min allahwi min altijara te it borom bi subhanahu wa taala mu ne mooy xayru raziqin moo gën ci ñiy wërsëgal yépp looloo tax moo ñu dig ne wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min xaysu la yaxtasib képp koo xam ne ragal nga sa borom jalla wa ala def ay ndigalam bàyyi ay tereem dana la wërsëgal foo xam ne yaakaaroo woon mukk ne sama wërsëg mën naa jaaree fii looloo tax julit da ngay gëm ne sa wërsëg nekkul ci magasin bi nekkul ci service bi nekkul ci usine bi gars yi salle de vente di démb xam nga barki démb la tàkk ba jeex tàkk ni ngi noonu ña nga xam ne dañoo jëloon seen wërsëg at ko ci salle de vente xanaa perte nañu déedéet mbokk wërsëg ci loxo yàlla la nekk mën na laa tëjal bunt bi ubbi la fukki bunt loolu tax julit du sukkandiku lu dul ci yàlla du yaakaar lu dul ci yàlla lum la xañ tey bu ko neexee ëllëg mu jox la lu ko gën yàlla na yàlla rafetal suñu wërsëg fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ñoo xam ne àjjuma dafay jot duñuy julli ji dañuy teg benn place wala kuli xaal bu dee ne dañoo doon nekk ci dëkk boo xam ne nii àjjuma nekku fa àjjuma mu fa kooku àjjuma waru leen du ñu ñuy wax ci ñi ne dañuy war a bañ a liggéey amma bu dee da ngaa nekk ci dëkk boo xam ne ni jumaa ja ma nga fa la taxoon yàlla tere liggéey bi mooy ngiree ñu dem jumaa ja waaye ña nga xam ne jumaa waru leen di jigéen nag ñi leen kay yàlla waxul ak ñoom kon ña yàlla di waxal mooy ña nga xam ne amuñu ngant ay góor lañu mën a dem jumaa ja kon soo demul jumaa ja kon kay bu la neexee mën ngaa liggéey mi ngi noonu nañu xam ne daal nga jumaa moom bu jotee nga dégg nodd gi nekk ci ab dëkk boo bokk na lu bari ci borom xam-xam yi li ñu ciy wax mooy képp koo xam ne dëkk ba nga nekk soreewul juma dëkk bu mag ba lii nga xam ne mooy cinq kilomètres war ngaa dem julli ji amma boo nekkee ci ab dëkk juma am fa da ngaa war a dem julli ji ak dëkk ba lum mag mag mag loolu de borom xam-xam yu jëkkee daan ubbee mu des nag xëy na bi ñu yàlla natoo tey ay dëkk yoo xam ne nii dana dem ba ay cinquante kilomètres loolu moom beneen mbir la waaye daal boo nekkee ci dëkk juma am fa da ngaa war a dem julli ji wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam ah lu mujj def waaw waaw ala kulli ala kulli xaal daal ki nga xamee ne nii mooy musaafir li nga xam ne mooy mazhab malik lenn ci ñoom dañ naan musaafir juma wóoru ko comme juma wóoru ko wurul jiite mbooloo mi waaye mbokk déedéet musaafir bi bu dee ne gis nañu ne moom dem na juma jum day am juma comme ña nga xam ne ñoo nekk ci juma ja kon ku mel noonu bu dee dafa jiite mbooloom it du tey mbooloom dañuy am juma mi ngi noonu incha allah loolu tax gis ngeen bari nañ ay imam yuy jógee Arabie Saoudite di woon àdduna bi fu ñu dem ñoo fay jiite juma loolee kon dara nekku ci musafir jiite juma ja dañ ne moom bu demul woon juma du ci am bakkaar waaye nag su demee juma la waa juma ja day am dana ko am kon bu jiitee julli ga dana baax wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam naam ah mu ne daa suñ coro ñu bàkkul suñ càmm xam nee na daa woor juum lekk juumat lekk voilà wala ku li xaal daal yàlla moom kenn mënul naxanteeg moom su dee daal daa yem ci ci fàtte daa yem ci fàtte looloo moom kenn waaye wax dëgg yàlla benn lekk moom waroon naa mën a doy yaakaar naa li xam nga inspecteur sàmm mi ngi fi am déet waaw suñu suñu benn waay rahimahullah daa ñëw kër ga ñuy ñuy joxe ataaya mu ne damaa war bu iya waa man damaa woor te mu ne añ naan naan naa ataaya de ala kulli xaal daal bu fàttee moom mi ngi noonu amul problème wallahu subhanahu wa taala alam wa ala kulli xaal kon naam naam naam waa ji moom nee na xam na ne ku dara kuñ takk kuñ mocc takkal la benn takk moom xam na ne loolu ci shirk la bokk léegi mu xam ko mu ne mu julliwaale ko ndax julli googu moom ci ndax ki julliwaale ay pas-pas alakuli xaal bu dee ne amul sobe loolu duñu wax julleem baaxul bu dee la mu takk amul sobe duñu wax julleem baaxul donte ne lam takk lu xaraam la xam ngeen loolu indi woon na fii benn muskila bu rëy yoo xam ne nii ñun ñii masoon nañu daal benn imam bu jóge woon Arabie Saoudite Cheikh Salah ñu laaj ko fii ci Colobane waaw ndax imam bu takk gàllaaj waras naa julli ci gannaaw mu ne xaraam xaraam yaa ngi dégg hee fitna bu rëy jural nañu ko waaye daal li ñuy wax rek mooy mbokk la valable arabie saoudite bokkul ak ñun ñun fii nit ñi diine bi lu ci bëri leerul seen bopp si bu boo ne du ma julli ci gannaaw imam bu dul takk gàllaaj jàkk yi ngay julli du bëri yaa ngi dégg na xam ne xam ne daal takk gàllaaj ga moom lu xaraam la bu dee ne gàllaaj ga du du alquran du askar borom xam-xam yi dañ ne dafa xaram la muy takk bu dee ne la muy takk alquran la wala askar ixtilaaf da caa am waaye même bu dee loolee lu xaraam loolee mu takk waaye julli gi moom bu ñëwee daañ ko gis allahu akbar ba asalaamaaleykum lépp jaar na yoon ki julli ci gannaawam dañ naan am nga julli mi ngi noonu yal na yàlla jéggal ñu jéggal bépp jullit xam naa 1000 francs yi ngeen di barkeeloo par mois ci jàkk ji incha allah ngeen bañ ko fàtte jazakumullahu xayra